non violence bi moom doxul moom ñun moom moo ñun moom moo waa ñun duñu violence te tamit waa Parcelles tamit ñoo ngi leen ciy woo tamit bu nu xeex bu nu xuloo ñoo bokk ndey ak bàyyi stade bi bu nu ñëwee dañuy xaaj jox leen bu nu yéexee nag duñu dugg te moom waa Pikine 9h ñu feesal stade bi 9h ñu feesal ko ci kattanu yàlla. jàmbaar nuyu naa la. ñu lay fay sëñ bi. yéen a ngi waaw ñun pare nañ. pare nañ bu yàgg ba ak Bamba. di xaar Modou rek mu ñëw. Ah, di xaar mu ñëw ñu daan ko incha allah. suñu loolu luy yomb la. waa mais loolu day yomb parce que mbër mi liggéey na lu daan Modou quoi waaw ñun ki ñu yor liggéey na loolu. lan ngeen pare ci mobilisation. non Pikine moom ku ñu xam xam ci mobilisation rawatina combat bi waaw combat bi dañ ko xaar cinq ans dafa yàgg quoi donc doomu Pikine ñëpp a jóg képp kuy Pikine waa combat bi da nga koy yëg boo gisee xam ne ñu ngi waajal bu baax waaw di xaar bés bi ñëw ñu dalal ma loolu daan incha allah. Modou am ñaari doom waa Pikine yu tegaloo est-ce que na yomb. mais Ama ñaar kenn war lu kenn mënta am man maa war am. waaw xam naa ne grand bi du ma romb te du wax kii mooy Pikine. Sarr événement bi toll fii mu toll. Mhm. gars yi yëpp di wax ni Sarr ngi wàcc ak ay ak ay doomu ndeyam ay doomu Pikine. Mhm. instant bi fan ngeen toll bu situation bi tolloo waa waaw ñun pare nañu parce que man événement wax dëgg yàlla man du ma dépassé parce que ku denc drapeau roi des arènes sa nekk dernier combat dernier drapeau wu Ama Baldé mu bëre ko le le 16 février 2018 moom mu ngi suma nekk. kon événement du ma dépassé dañ ko def comme combat yi rek waaw dañ ko jàppee puudar comme euh, combat yi ñu doon préparé rek. ku la xam xam la ci mobiliser waa pikin mm-hmm. tey jii waa Pikine nan lañ mobiliser woo ci combat bi. non lii musul am ci Pikine. combat bu mel nii ak dayo bi mu musul am si Pikine waaw def nañu lépp aar nañu suñu mbër. comprendre nga xam nañ ni suñu borom rek moo ci des ñu taalal ko loxo suñu borom may ñu ndam may may ñaax tamit sama rakk yi nga xamante ne nag. muy sama kii ñu nekk Pikine comprendre nga mais sama kii sama xarit bi yaramam daa tàng paate voilà. mais tey jii yeneen mbëru Pikine yi ah ak magu Pikine nan lan nekkee ci combat. non ñooñu ay rakk ma ay ñooñu ñooñu noonu ay magu Ama Baldé ay papa yi Ama Baldé lañu nekkewuñ dara lu dul jàppale Ama Baldé pour yàlla may amul kenn ku nekk Pikine ku yéenee Ama Baldé safaan loolu laa bëgg nit ñi di bàyyi di si communiquer. Ah, nit ñi li ñuy wax naan Pikine daa am. nit ñi li ñuy wax su tabaski jotee dañuy dem dëkk ba julli ji ah. ñooñu ngay wax noonu bu tabaski jotee dañuy julli ji bàyyi ñu fii ñun bi juddoo fi yaroo bi ñun duñu wax loolu communiquer yoy nit ñi di communiquer la bëgg ñu bayiko gëm ni pigine yëpp ñi ngi and ci ko. ñun ñëpp ñi ngi ci and ak ñom képp ko si naan ñi jubo ñu jubo wuñu rek bu tabaski jotee da ngay dem julli ci seen dëkk. bay bay ñu wax wala wax lan ngay wax ci violence. non ñu ngi ñaan ñu ngi wo ñëpp ci jamm non violence. yéen a ko déggandoo ma ne Pikine ñëpp a ngi bokk ndey ak bay and di jappalé seen rak seen dom Ama balde ay wa yow lo bëgg wax moom. mu ma sànq ba tay mu ma sank ba tay dafa ma xamé nak xam nga doom Pikine la dafa ma xàmmee sànq ba tey mi ngi topp sama ginnaaw mais ñu gëm ni ndeysaan moom waaw yàlla ay jaamam ama la faral. ama yee. ama yee. ama yee. ama yee. ama yee. kon ñu doxal xool ba tey situation bi grand Pape Sarr wax lu am solo Pikine benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar yenn communication yi dañ ko war a bàyyi xam ne Ama Eumeu Sène Boy Niang ak Sokh ak keneen ku fi dëkk ñoo bokk ndey ak baay kenn mun ñoo féewale kenn mun ñoo jaxase communication yi maal yooyu il ñu génne ko ci te xam ne Pikine moom du ñu bàyyi Malick sa na may guddul gëj naa laa gis. waay waay waay daa bëgg <laughs> nii waay sama ancien xarit a ngi nii ma laxasoo yi <laughs> ay Malick ak ngoogu from Dakar instant mi ngi noonu waaw kooku Cheikh Sarr Ndaw Manu ko Cheikh Ndaw du bay ay xës ay Cheikh Ndaw kan jaxaarloo kay kay kay kay kay yo xam man la gisee buntu keur Ama dama lay rocc ne la kay ndax yow Pikine ngay supporter Pikine ngay Pikine ngay top li gonay nan Pikine lay top tay Pikine fi lamb ju tollu situation bi lan ngay yek non li ma yëg bëri na li ma doon yëg rek bu ñu Ama di bégal laa yëg tey loolu la yëg maa ngi yëg bu baax. am nga yaakaar ci combat bi ngeen jëm. instant yi xam nga fa lañ toll daam dañoo toll ci féliciter Ama di encourager Modou Lo. cest à loolu kay mooy mooy mooy lamb jeex na jour si la ñuy xaar ñu ñëw linjaa ko lamb ji slogan bi linjaa la dañ ko koy linjaa mu neex ko mu naqari ko dañ koy linjaa indi. yaakaar nga ne luy yomb la ci yéen. pour sénégalais yëpp comprendre combat mook Ama bu jeexee nañ ko jox Tapha Tine. nañ jox kan Tapha Tine. Modou Lo. non kii mi ngi koy xaaraat Boy Niang. ma ne mook Boy Niang sax du dem fenn du bouger un mètre centimètre. tey nan la Pikine mobilisé wu ni ñëpp koo koo xam ne Pikine la dëkk mi ngi ci ginnaaw Ama. tey Pikine Pikine Pikine mën naa ne ginnaaw raay Pikine rond rond rond cercle pikin bi rond bi ñëpp tey ñu ngi ci ginnaaw Ama tey ñëpp parce que euh, damay faral di wax ne Ama buñ koy wax góor nga dañ koy mujjee xas parce que boo koy wax góor nga rek danga nga koy xas lu tax li tax mooy góor ci biir góor ñi kooku doone ko góor nga da naan ko góor nga ci biir góor ñi Ama Baldé góor la ci biir góor ñi li ñëw yëpp mu rejeté ko ñun xam nañ ci dara nettali wuñ ko luñu xam mu leer nañ la mu nek borom xol yor grand cœur manam tay ki am bay gis bopam ba bay yor bët xébel yalla dimbali nako ci lolu tay bo ñëw fi boy yi ndaw mbocc yi am ak am ak ku mu mën doon taalibe billahi wallahi bo ñëw amaté la mom loolu la rawé ku kullu mbeur kullu mbeur nak bayiwuma benn mbeur kullu mbeur la Ama balde rawé barki Serigne salih mais yeneen mbeur yépp du té ñing ci ginaam diko soutenir. ñëpp a ngi ci ginnaawam di ko soutenir gis nga Ama Baldé pikin yëpp sax bu jouru làmb ji jotee bu pikin yëpp demul estat parcelle ñëpp dugg Ama yee ngay dégg amul ma dem ñëw sax Ama yee ngay dégg parcelle pikin lay mujjee supporté Ama Ama du maru pikin kese mbëru mbëru gox la mbëru àdduna la yow ku la xam tamit xam na ni genre Cheikh euh, genre Pape Sarr bu ndaw nga ndax événement ëma seen dañ lay fekk nga taxaw ci buntu bi Boy Niang dañ lay fekk nga taxaw Ama Baldé dañ lay fekk nga taxaw kon tey dafa mel ni Pikine na taxaw lan ngay wax jeunesse pikin jeunesse Pikine yi li ma leen di wax mooy ñu delloo yet fa daan dal rek comme ni ñu ko doon defee comme que Pikine xamee nañ leen mobilisation bu am force xamee nañ leen booloo doon benn tey Pikine ñu koy copier dañoo bëri muy maanaam ci solidarité bokk benn kaasu café bokk benn cigarette. loolu tey ku ko mënti dund Pikine nga ko gisee fii nga ko imité te senegal li muy rëy rëy rëy laa la wax de Serigne Touba Ndakaaru bokk Ndakaaru lu muy rëy rëy Serigne Bamba Xaadim Rasul yaakaaru jaam ñi Pikine la am kër titre foncier bi turam moo ci nekk. Pikine ken kenn tuddeewu ko ko. yeneen yi ngay dégg jàmm gën ak feneen ak feneen dañ ko koo tuddee kon fii Pikine da am lu fi ne démb loolu depuis démb la taal bu yàlla taal lu ñu wax sànni jamat gën fay ko moo gën fay ko. Pikine noonu la demee Pikine depuis boobu ba mi ngi tàq Pikine kañ lay fay ana ñi ko doon xaar pour Pikine fay ñoom ñoo mujjee coupé Pikine ba léegi mi ngi taax Pikine du luy bi Ama dem na dem génn na wala génnagul ndax dañoo gis oto bu fi génn dem ñi ne Ama la. waaw loolu dañ ciy def code. baa <laughs> ñu def ci code. def ci code. yéen a dégg borom Pikine la seex ndaw sama xarit yàgg na jaajëf jàmbaar. cëm gars yi nee na ndel <laughs> man am naa ndel mais sama bopp est-ce que. waaw mais waaw gars lan ñu xaar ko xoos ko. Ah, <laughs> ah, ba tey maa ngi biir Pikine. Pathé ci borom saret bi de. jaajëf eh mais kaay cam jëlee ma caméraman bi yow <laughs> <laughs> def sa ndel diw mu niin. yow yow naan ma def sa. non bokkul maay tojal bi. ah yow doo watu daal doo ndel. non yow lii du ndel la. Ah. borom ndel bee ngi ci biir bii ndelantu la. nga instant bi fan ngeen toll actuellement. instant yi ñoo ngi nii ñoo ngi waaj pare nañ nag yàgg na xala moo des jëli ndam li ñëw. am nga yaakaar ne loolu luy yomb. door mu xam. déjà mën a dóore dëkkum dóore door mu xam. door nga wax dañ koy jall bu laabu bu jàllee dañ koy poselo eh, dañ koy poselo ma ne Modou Lo bu ne mën na daan Ama ah, di ngeen ko gëm buñ taxone ne bëtam sax du ko daan ah moom du xol ki dama yaakar du gis ben tang lañ koy may ben tang ak tax mu daan lo ben tang la lañ koy may ak takk beut waaw. ngeen duwal ko. ben déggoo ma la xana da ngay foxos joxos. ki mo la war yalla yàlla. foxos joxos moy lan. foxos joxos moy taxaw daan ko ñibisi déggoo ma Ayo du yàgg sax lañ koy Ayo nii jaajëf jaajëf sama gars yi nuyu naa leen Seexu Pikine bàyyi ci jàmm sant yàlla dañuy doxal sant bëgg naa ngeen jox ma ci affaire de xam man Pikine laa dëkk mais affaire dafa ma tëj quoi da la tëj lan moo la tëj noonu man xam naa ne mais yéen pardon sax ñu def loolu kot yéen dafoo leen ci de Seex yi nu mu fa demee ni non déedéet non non non yàgg nañ ndelu ndelu nañ ci baat ci baat waaw ndelu nañ yàgg instant bii fi combat bi toll lan ngeen yëg waaw lu ñu yëg lu dul victoire nañ yëg ak ndam ñun xam nañ kii bu ñuy xale ba léegi ñu ngi koy topp nga yaakaar ne luy yomb déggoo lu ma la wax méttiwul. li njaa la waaw. combat bi su ma la laajoon tey ci mystique euh, ndax na ci feeñ ñoo may wax. déedéet non non jàpp daan ñi bi par force. lu leer laala wax nag. loolu dina yomb. billaahi seexu yàlla bi nag moo ko wax de. jàpp daan ñi bi par force. mu yomb trop. waaw lu leer laa wax. Pikine nan la def ci mobilisation actuellement. bari na lii nañ xam lii nañ juddoo booloo rek nañ juddoo. barke Serigne Touba. billaahi booloo doo ko déggee Pikine na tax. voilà la sosoo quoi. waaw bëggee la jàmm doon benn. tey ku leen xam xam ni yéen ay message ngeen euh, lu mel ni violence yan kàddu ngeen ciy lancé. non zéro. zéro doo ko fi gis maa la ko wax. barke Serigne Touba soxla wuñ ko sax. billaahi duñ ko sax jëfee. lan ngeen wax booy parcelle waaw booy parcelle lu leen wax lu loolu ñun am nañ fa ay soppe. ndax ñun ñëpp a ñuy bëggee. comprendre nga làmb la. ndam li génnul Sénégal. mais yàlla fii la ko dogalee Pikine ngeen bëgg daal ndam li des. waaw la dul fenn par force. gars loolu yomb na de. yomb si la dama dem parcelle gis gars yi gars yi ni ñu sadigee noonu ak yéen ni ngeen ko yombalee nii. waaw déggoo la ndam li Pikine la ñoom sax xam nañ loolu. te ñaanuñu dañuy foqati. Linjaa la ah booy du Linjaa. ah booy booy. Linjaa la de. Linjaa la merci gars jaajëf Seexu Pikine yaa ngoogu gars yi dañ leen a bëgg góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp a leen bëgg ayca ma xool booy Paate jëlal ma lii li lii galgal la galgal ah sa waay lii galgal la non non dafa nak, mais boy dafa nak yow yow mbër nga xanaa waaw mag mais yow galgal gi suñ ko lonko sore ah boy wane dan, ma boy mooy li li lii fii ma dan ah ma lo lu mel ni na awa ah, nii la koy def na ko tool mu dem. tax waaw. Aïcha. pare loolu dafa garaaw galgal bi tar nii ba tey yéen a ngi Dakar instant ci direct bi aywa ma jéggi tali jaajëf grand ziar naa la ci sécurité bi nga ne. waaw sécurité bi la mais yéen ngeen di actuellement ah. waaw ah. ah, sécurité bi la waaw. waaw mais gars yi xanaa sonn ngeen ak nit ñi nan ngeen leen di gérer. ah mais maintien rek dañuy maintien rek fexe lu ñu mën lu ñu mën daal la ñuy def rek. fexe daal kenn bañ a mer. waaw kenn bañ a mer rek waaw loolu la. mais am nga yaakaar ci mbër. 100 pour cent. 100 pour cent ndam la ndam ñu xam lu ñuy ñaan ah yàlla na mbër Modou Lo ñëw ak jàmm waaw moom lañ koy ñaanal mu ñëw ak jàmm rek. yow combat bi tey su ma la laajoon ci bëre nga am yaakaar lay jeexee wala ci xeex loo may wax. non maanaam si lépp la. waaw ah. waaw même tout Samba da ngay jóg jaajëf bàyyi ma ko ci Ouzin eh Ouzin. kam ni Ouzin dama lay coach ngaan ma lan kaay dama lay coach boo defee nii ma def nii ñu dee. <laughs> jaajëf doom Pikine la ma waaye wa loolu dama neex Ouzin doom Pikine la moo tax mu daw yoole soxna yi nuyu naa leen. ñu ngi lay bu baax sëñ bi. dama dem parcelle fekk fa soxna yi ñoom ñuy wax ni seen mbër pare na ah, tey nag maa ngi Pikine fii wetu kër Ama bu combat bi tolloo fii yéen lan ngeen di yëg. pare rek jàppale ko jàppale sunu mbër xale bu baax xale bu yaru xale bu am yar luñ ko laaj mu indiñu ko dañ kaa laaj 9 points mu indiñu 9 points Pikine gii kon dañ ki roi des arènes bi la ñuy indi Pikine gii ci barke yonent bi te day am incha allah rabbi. am ngeen ci yaakaar daal. bu baax dañoo pare xaar déggu ma dañoo pare ñun sunu mbër dañoo pare dañ koo ngeen toog di xaar. parcelle eh dégg ko ma xanaa bu boobaa mën na toj ki nent toj. ah yaay booy li daloon Eumeu Sène est-ce que mën leen a dal yàlla tere. ah ñaanuñu ko yàlla de. waane sunu rakk ji ah am nañu yaakaar si moom si barki sëñ Babacar si ama dina ko daan daan bu leen nañ su neexee yàlla sunu borom incha allah moom lañ bëgg de si waaw. yàlla na ko yàlla def amiin yàlla na ko yàlla def kon jigéenu Pikine yaa pare nañ pare nañ pare nañ pare nañ di xaar suñu mbër di dañoo may nag dañoo may nag spécial dul jàngi fi yëpp ñu koy feetu incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam kenn du liggéey ah, de. Ah, man pare naa eh. yéen fi ngeen dëkk yéen yéen. fi leen dëkk fi leen juddoo fi leen màggee fi leen yaroo fi leen réewee. waaw mais defal naa defal naa defal naa da xaar leen ma xaaral ma waxal ñu defal na jàng ba xaar ma yow da ngay doog a wàcc wala. maa ngi soog a wàcc. wàcc def tout droit kër Ama. wàcc def tout droit kër Ama. nga nekk supporter bu mag. yow yow est-ce que xam nga Modou Lo. Modou Lo ku ko soxlaa xam du yam. dëgg oh, Modou Lo yambar mu mag la. Modou Lo yambar mu mag la mooy seen roi mooy seen roi. Robi, amma mo mo. Jaya fgra ya. Ba ah, mala jaar ga Amma ga. waaw ah, inshallah waaw ah, ñu ngi ñaan Yalla ma ñandam rek bu sedd guuy ci gam mo Lo Mo Lo moom xam nañ ko bu baax ah mbër mbër bu baax la bu am jom la waaw ñu ngi ñaan amma Yalla ko Yalla may ndam ci bàq sen mëntu xaar ñu fété fi Robi bi inshallah rabbi Fi ci Pikine Fi ci Pikine lënd inshallah rabbi Jaya f. Jaya f yene ko deggono. Ba fi a Pikine bi la am ñu may daw Boy ndaw yi yéen yéen làmb yéen lamb aayoo leen ci quoi yéen lamb ay galgal ngeen ci am. man xam naa loolu moo tax ngeen ñëw fi. waaw Amar rek lañ topp Amar rek wax Modou Lo na yam man Pikine rek laay topp. gaa yëf grand nagam. waaw oui ah. ah yow da nga ñëw fii laa fi caméra yi di naawee nga ne bu leen ma caméra jëlal ma ko jëlal ma ko jëlal ma ñëw fi laay dugg. Kali tago tag tago fere ñew kër Ama yépp paré jëlal ma leen xalé jigéen ñi. la ah, ngeen def. ñoy fi. ay supporter kan nga Modou Ama. eh doo ngeen ay Modou ngeen lu ngeen ngeen. Ama Baldé la. Eh, wax ngeen Ama dina daan Modou bu baax. dina xale yi Modou roi des arènes. mais Ama da koy nangu si moom. jaajëf. gaynde nga. bi kese ñun Ama rek la mais gars yi dañ ne ñuy topp Ama dañuy watu ndel yow watoo ko. ñëw léegi léegi damaa wat dama dóori woon bay waaji nii léegi léegi ndel bu set wicc lu garaaw ñun pël bi kese la ñuy. fondang daal waaw bu leer naññi. lan ngay wax Modou Lo ak waa Parcelles. non nañu xaar ñu tegal leen lu bëri doole. Modou Lo du Thiès wala awana Thiès aan. jaajëf awana Thiès. Dakar instant ci ay instant rek ma wala lu yéeme pare maa ngi ci jakartaay be bi ci convoi bi la ah daa jëf sinding car jakarta yaa sama gaay naa dinañ ko bi convoi la convoi la waa ama rek la ñuy topp ñu mais mais xoolal yow ama rek ngay topp mais xoolal man man rek la ñuy topp pare dina ma sama fan fii booy man rek ngeen di topp waaw man rek la ñuy topp mais xoolal da ngay boo la may topp da ngeen di watu ndel comme Jambaar nuyu naa la. delloo ziar baay. ah nan waaye daan rek ndam rek lan soxla ñun soxlawul leneen. am nga yaakaar loolu lu yomb la. yow man na arbitre bi ne pire rek. ngeen defaral waay laay xalaat ñàkk bëri. barke Serigne Saliou. lu tax nga xalaat ñàkk bëri. sa waay na na Modou ñëw rek. non Modou moom di nokk daan leen. maa la kon yow da nga xalaat violence bi dañ ciy bañ. déggoo ma de ñoom ñëpp la ñuy noq laa la wax ñu dem ñibbi. jaajëf kii yaramam dafa tàng kii boo xam naa ne mi ngi bëre te dara xewagul Aïcha par de situation bàyyi nii stade xaw ma lu fa xew mais daa mel ne war nañoo war a commencé jege stade xooli situation bi foofu jàmbaar ziar naa la. wala ziar. yow la kan ci gaay man la Ablaye. Ablaye supporter na ma woon. waaw supporter na ma woon. fi combat bi toll yow. loolu yëpp Malaw ci wetam maag Malaw Malaw. Malaw mooy kan. Malaw Seras. Ah, waaw moom